démocrates des fois euh, dañuy militer pour l'impunité euh, des des hommes politiques mais on se demande fan fan fan la ñuy gisee loolu le plus souvent alors euh, euh il a également parlé d'irresponsabilité euh, par rapport ak Ousmane Sonko su demee bay jeter le discrédit ci ay institutions est-ce que vous le prenez comme ça à part je pense que ñi irresponsable ñooy ñi jël un un aspect de la vie privée d'un homme politique bëgg ko def un je pense que tey Sénégal bu ñu doon wax ci vie privée homme politique yi mbetteel dina jóge fu ñu ko foogeewul et je pense que Sénégal suñu démocratie ak nu mu toll si dayoo mérité wul histoire bu mel ni indi 14 mois dans ce pays là. mais mais y a eu la la sortie de Mimi Touré quand même buy wax ne que c'est pas euh, l'APR ñoom ñoo tenir. Euh, non, ouais, justement carnet de rendez-vous du mu nekk di tontoo teg moom parce que chaque fois que Macky soxla ko utiliser ko après c'est ça son sort ah te ñaanaluñ ko nuñ ko loolu li ma ci bëgg wax mooy mooy mooy euh, nee na Ousmane Sonko en tant qu'acteur politique majeur dafa génn def benn benn sotti mm-hmm. parce que il a fait un rendez-vous d'actualité et j'aimerais dire aux Sénégalais aussi mm-hmm. au-delà diabolisation bi ñu bëgg def Ousmane Sonko Ousmane Sonko est un acteur politique qui maintenant mérite le respect dans ce pays parce que son parcours est quand il y a sept son parti n'existait pas aujourd'hui tey nous en tout cas ki nam ay Yewwi Askan Wi on sait que si on devait définir un grand gagnant dans ces élections là ce serait le Pastef de Ousmane Sonko et d'ailleurs bëri na candidat yu doon toog seen base di naan Ousmane Sonko kenn lay ñëw sama dëkk il le la justice est rendue au nom du peuple le peuple après Ousmane Sonko moi j'étais candidat de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis hmm. rare ngay gis nit ku la ne man de coalition bi ndegam Ousmane Sonko mu ngi ci ci la ci la bokk donc les sénégalais apprécient cet homme les sénégalais le respectent et au-delà travail de diabolisation bi ñu am Ousmane Sonko a au mois d'octobre mm -hmm. ses avocats le parquet et ont saisi ont, ont, un certain de requêtes sur lesquelles on les a répondu on les kenn tontuwu leen Et aujourd'hui, il pour édifier l'opinion sur le fait qu'il est encore une fois plus près que jamais à aller au procès. Parce que seul le procès peut dire la vérité. Mais Nakundo Bindaï Samam, Bogissé Lunyu Ndangadao. C'est-à-dire Moi, j'étais dans le procès Khalifa Sall. Je suis un militant de Tahaou. jour, procès Khalifa Un procès fast-track d'ailleurs. Il parle de temps, il nous parle de temps. Le procès Khalifa a l'avocat de l'État, celui qui a le procès. On a tenté de le récuser, on nous a dit ñett le juge s'est opposé muy Antoine Félix Diome tey moom mooy ministre de l'Intérieur Sénégal Anna Marie Lamotte juge première instance bi bombardé nañ ko président tribunal de commerce ñu dem appel fekk fa Demba Kandji ana mu tey il a été bombardé médiateur de la République à 65 ans tu parles de retraité Omar il a 65 ans on le met médiateur de la République ñu jógee fa dem cassation ana Badio Camara 68 ans ñu bombardé ko cour de cassation donc ce qui fait que aujourd'hui Ousmane Sonko a raison de réclamer un procès mais cette fois-ci un vrai procès pas comme ce qu'on a vu ak Khalifa Sall pas ce qu'on a vu et on a envie édifier Sénégalais ñu xam on va aller dans un vrai procès et il a raison parce que man à l'intérieur du procès Khalifa Sall si c'est un procès bu nga xamante ne on vient pour t'humilier il a intérêt à se préparer parce que ce qu'on a vu ak Khalifa Sall dañuy jël ay sagaru avocat tekkiwul dara fay leen ñu ñëw di la humilier di la saaga di la xas devant tes enfants devant ta famille devant tes proches la justice c'est pas humilier quelqu'un mm aujourd'hui Ousmane Sonko est sûr de son fait il réclame un procès donnez-lui à ce procès juste et équitable tout le reste n'est que bavardage alors dañoo gis ne que juste après cette sortie de Ousmane Sonko euh, y a eu euh, dañoo commencé peut-être euh, euh les appels euh, gis nañ ne que on va entendre euh, ki yoroon Sweet Beauté mardi présent Ousmane Sonko également dañ ko entendre avril est-ce que ça veut dire que sortie boobu moom moo tax lii yëpp enchaîné wu Omar Faye waaw xam nga nen ku ci ne quand on parle de l'instrumentalisation de la justice dafa mu jóge mhm. soo gisee tey je comprends parfois l'opposition moom Sonko pourquoi muy am yenn position yi mhm. fii nañ mettroon en place la CREI c'était Mimi Touré mhm. ñu tànn ay nit ne ñii lañu war a entendre qui est une juridiction d'exception amul appel amul dara dañ lay wax tuumaal la boo indiwul preuve ñu tëj la am na wala amul. Mm-hmm. kenn nit kese lañ ci tëj xëy suba exile ko muy Karim am na wala amul. beneen bi mooy li ñu tuumal xalifa Sall maire yi boo dem fekk ko fa. caisse d'avance. ma ne cabinet maire boo dem instant bañ koy def. boo fa demee jàpp ko ku ci ne la muy def engagement ba génne xaalis boo ko demee topp ko jàpp ko donc bi boo gisee ñu toppoon Khalifa Sall mooy am na leneen loon taxoon jóg tous ces deux en l'occurrence Khalifa Sall comme Karim Wade constituaient des adversaires potentiels du pouvoir war a dem mun mënuñu dem mais ñu ñu ne quest qui se passe rax si dolli nag la ngeen doon tuumaal askan wi gisuñu ko ils ont senti une instrumentalisation de la justice xel nangu na ko da ne léegi ku ruubi ndey sa maam soo gisee lu ñu daw gis nga boo gisee ñu ne la boo jiitee bu topp euphorie yi nanga tegu si dëgg c'est pour que demain boo defee lu xamante nii ne amul ñi ñu ne ah kii kat même bu fekkee ne am na duñ ko topp parce que am na situation bu am déjà boo xamante ni ne la ñu defoon ñooñu du yoon et c'est ce qui s'est passé avec l'affaire de Sonko aujourd'hui même s'il y a un dossier kii est là qui est un dossier privé mm -hmm. les gens sont obligés de considérer ça comme un instrument comme une stratégie pour faire disparaître un adversaire politique parce que jurisprudence su Khalifa Sall la jurisprudence su Karim Wade et c'est ça qu'il faut éviter bu réew mi ne woon ci yoon ku deful yoon ñu doon la du ñu xool foofu far du ñu far du ñu xam du ñu xool ba xam xayatu président nga wala lanu président nga xam nañ ni justice moo def liggéeyam équitablement d'une manière transparente beneen Sénégal bu mënti doon bu ko justice toppee mu ñëw mais c'est parce que li ñuy dund la te loolu c'est des choses à éviter politisation bi mënuñu ko bañ il faut ñu ñi def ko mais justice bi en contrepartie lii war na leen war na leen ne am na benn taxawaay bu ñu war am si réew mi parce que que ça soit Karim que ça soit Khalifa que ça soit Sonko ils sont pas n'importe qui dans ce pays bokkul ak Omar Faye bu ñu jàpp. dafa am ñu xamante ni dañu am yaakaar si ñoom gëm ñuy mën nañu nekk président de la République. ñu ànd ak ñoom. reste dolli nag as yëwan nañ la leen génne est-ce que wax nañ ko. dañoo xëy génne la lu tax ñu génne la lan quelles sont les raisons et kenn xamul loolu nag moo tax tey même bu justice di toogee dañ leen di wax ne leen li ngeen def ñii wóorul mën nga dem ñu humilier la wala nga dem ñu tëj la ñu def la quoi que soit bien que il faudrait pas que ñu fragiliser notre justice quand j'ai entendu Sonko dire voilà deux mois oui j'ai pas parti signé rafetlu ma ko. parce que pour yow. kilifa la il est appelé à diriger pays am na suba fu mu war a toll am na moom da ko war a éviter bien que parfois par stratégie di nga am loo xamante ne di ko teg mais loolu war a koo wax c' est pour ëllëg ak ñi fi ñëw. parce que moo na nekk ci mën na nekk jurisprudence auprès de certains. il y a actuellement ci contrôle judiciaire ils peuvent ne pas partir ne dootuma signer parce que c' est des justiciables. donc ça a été une erreur. Mhm. mais nag justice bi ngir yàlla ak yonante bi nit ñi dañu yaakaar si yéen pour qu'il y ait une stabilité dans ce pays. Mhm. am na doxalin boo xamante ni boo ko amee. Mhm. nit ki ñaaw njot yomb na. nit ki yaakaar ne seen objectif moom ngeen détruire ma loolu yomb na. d'accord moo tax nag affaire Khalifa Sall affaire Karim bi. ak affaire Khalifa bi mu toll fi mu toll na ñëpp wax nañu. nan ne mhm. réew mi jàmm la bëgg képp ku ci wax abaa wax na ko léegi dangay wax nii rek mhm. fii dossier bi l'arbitrage c'est le peuple le peuple ne se laissera pas faire nee na attention ça am na loo xamante ni bu ko defee bu ñu xamee ni lii ña fi ñu ko nar a dem jëme baaxul c'est le peuple qui sera là mais laissons la justice dans la plus grande sérénité et la plus grande comme l'a voulu mm -hmm. il a été grand il l'a dit il l'a dit d'abord bi ëmmati amee avec la rencontre de M2D il a dit que je veux que le dossier soit enrôlé rapidement et que le procès ait lieu mm. réitéré na ko aussi de par le grand entretien qu'il a eu effectivement et puis il a dit mhm. que Euh, euh, euh, Adji Sarr bu leen ko rey te naka famille am sécurisé. parce que wóorul. même voilà. non waaw vas-y. waaw c'est important. Mm, ça veut dire que moom il est dans une logique il veut que immédiatement que ce projet ait lieu mais la ñuy xaar qu'est-ce qu'on attend le juge a convoqué la dame. c'est mm. bon. Mm-hmm. les gens attendent la wax ils vont convoquer les autres ils vont partir mais dama bëgg xamal ne leen. Mm-hmm. ci dossier bii. le dossier a été internationalisé de telle sorte que fii la fii la réew mi di nekkee ci jàmm ba faw wala fii la ñuy suñu justice ñu fonk ba faw wala ñu bañ ko fonk yu saw bu demee ba war a juger d'une manière transparente d'accord et d'une manière sereine. très bien alors Serigne Saliou euh, quand on regarde euh, Ousmane Sonko mu nekk quand même.